assemblée nationale da koy convoqué pour que ñu war a liggéey li nga xam moo jëm ci mbirum budget bi tey nag ku ne xam ne 10 heures ba léegi ñu ngi fii 10 parce que ba 16 heures assemblée nationale parewul pour que jox sénégalais yi ba tey lañuy xaar ci ñoom parce que jàpp naa ni gàcc la ci réew ak fi situation réew mi toll gàcc la ci démocratie nga joxe convocation 10 heures ba 16 heures. mu am ay problème yi xëccoo ay poste ba tax na maanaam assemblée nationale mënut a délivrer ba léegi may wax a yow ndax ñun bi nga xamante ne en tant que wàllu dañoo ñëw ni élection lañ jëm mooy di cinq mois de élection dañuy maintenir li nga xam ne mooy li fi nekkoon le président Lamine Thiam président groupe Cheikh Abdou Bara doole vice président groupe Mamadou Lamine Diallo jël ki nga xam mooy la vice président assemblée national président commission ñu bàyyi ko noonu ndax jàpp naa ni nit bu fekkente ne dafa àndandoo am dara. bu demee ba nga xamante ni loolu juróomi weer moos des kenn ku nekk war naa muñ ngir que maanaam fexe ba loolu jeex si jàmm mais gis na ni taxawu ak euh, Pastef dañoo am ay jafe-jafe pour que li nga xamante ne mooy seen groupe parlementaire mën a taxaw ndax bi ñu xëyee ñoom dañoo jël 53 députés yi nga xamante ñoo bokk si groupe Yewwi yëpp ñu déposé ko mais baa yi Pastef dañoo bëgg nangu poste yi nga xamante ni moom la waa taxawu amoon te jàpp naa ne loolu bu amee day nekk loo xamante ni ferfutu lay doon. lu nekk loo xam lu rafet lay doon aussi parce que am réew bu ñu ko dee yor wala nga am yéene pour yor ko nit ki même bu ngeen àndul kenn ku nekk la mu war a am na ko am parce que ba ñuy tëgg seen kuréel ñu ñëpp ñu doo dañoo àndoon si àndum nawle kon loolu yaakaar naa ne manque considération mënu ko passé fi may woo sénégalais nag ma leen di gën a yee pour ñu jël exemple si lu mel nii parce que ñun dañoo am ay jafe-jafe yoo xamante ni mooy jafe-jafe démocratie si réew mi dañoo am ay xam mooy jafe am intention bu ci réew mi dañoo may ay jafe-jafe xam ne dañoo war a jox une bonne exemplaire mais député yi c'est le mauvais exemple la ñu joxe respecté wuñ heure askan wi ba pare amul benn démocratie ci li nga xam mooy parlement bi yaakaar naa lu mel noonu gàcce la ci réew mi gàcce la ci assemblée nationale ndax jàpp naa ne fi ñu jëm nii nga xamante ni assemblée bii passé ñëpp ñu ngi ñaawlu dox doxalin boobu tey ñu ubbi assemblée am retard fukki waxtu ak nangam parce que ñu am ko retard yaakaar naa lu mel noonu wurta mën am ci réew mi moo tax may woo président assemblée mu jël ay décision pour que ñëw wàcc ñu mu gën a gaawee ngir ko ñu mën a situer defar bureau bi ñi si mën a dugg dugg si ñu si mënta dugg dem si beneen groupe pour dugg foofu noonu loolu moo tax may naa leen woo pour waxtaan si ak li nga xam mooy Sénégal yi xam ni xaar bi yàgg na mais li ko waral mooy dafa am blocage entre taxawu ak waa Pastef ci ci li nga xam mooy groupe parlementaire bu yeewi waa Benno Bokk Yaakaar aussi amoon ay blocage ci seen biir parce que amuñu woon groupe parlementaire parce que ba midi jot ci a mooy nekk seen président groupe yaakaar lu mel noonu ñun ñin defoon nga xamante ni depuis démb si guddi pare nañu lépp lu ñuy pare bi 10 heures jotee ba teg fukki minutes ak ñaar ci la ñu déposé li nga xamante ne ci taabalu secrétaire général bu assemblée nationale li nga xam mooy suñ proposition de bureau toog di xaar lu mel nii nag askan yëpp war nañoo yeewu xam ni nit ñi nekkulu fi seen bopp xëccoo ay poste moo leen ñor te baykat yi ñu ngi toog. courant bi mi ngi seer askan waa ngi sonn ñun ñëpp ñu war a taxaw pour assemblée mën a taxaw pour mën a liggéey pour loolu mën a jeex ci li nga xam moo des ci li nga xam mandat bi te ku ne xam ne ne mandat assemblée bi man na candidat yow tamit candidat man bokkuma PDS man maa ngi bokk yor coalition nekkal fi askan laa jiite man maay président mouvement nekkal fi askan wi waaye dañoo samp benn coalition boo xam ne mooy coalition nekkal fi askan boo xam ne ay parti politique ñoo am ay récépissé ak ay mouvement jox ma ma ñëw pour nekk candidat am yéen ci réew mi indi programme 155 pour defar jikko defar nit nag tey jii lii tey jii am. bokk na si li tax ñu bëgg a defar nit parce que nit boo ko defarul doo mën a am jikko ju rafet nit boo ko defarul a am maanaam ngëm-ngëm sa réew da ngay mën a topp sa kii loolu moo tax ñu am parrainage numéro 146 ñu ngi ci parrain yi ñu ngi sori am nañ suñu caution am nañ suñuy matériel dañuy dem si élection yi bu ñu demee lu ñu yàlla may baax na bu nee ba nga xam ne génn na nag képp ku génn gën a placé bu ñu ci intérêt ñu ànd ak yow jàppale la Mamadou Lamine Diallo yéen waaw man mii di wax ak yow maay vice président groupe parlementaire bu wàllu comme ni ma ko nekkee woon coali euh, bi nga xamee coalition bi nekk président groupe vice président groupe parlementaire liberté et démocratie changement Mamadou Lamine Diallo vice président bi ñu amoon tam yore woon ko moom lay maintenir continuer ak moom ñun ay gor lan Lamine Thiam mooy président groupe bi parce que dama leen wax ni bi ñuy tëgg coalition bi.